tey foofu nañ dem si leen li nga xam ne tamit moom mooy nekk Wally Balago Seck dafa war a dem fi nga xam ne nii moo nekk euh, Addis Arena le set incha allah li nga xam ne nii Sénégal àdduna ñëpp a ngi koy waaj rawatina moom mi nga xam ne nii euh, moom moo ko nar a tëgg. alors si ce euh, dafa am ay influenceurs yi nga xam ne nii temps yëpp ñu koy gis ñu fay dem di fa def ko def ay interview pour def la promotion de cet événement là mais non am na benn. pertinent question bi nga xam ne nii posé nañ ko ko gannaaw. ba yaayam génne àdduna muy mama jaaga c'est la première fois Wally Ballago Seck na def événement bu toll nii nan la ko dund nan nan la ko nar a dundee sans kii nga xam ni mooy nekk yaayam alors nañ dem xool Wally Ballago Seck su tontu mu nekk tontu boo xam ne bu triste la let's go bi ne si c'est bon. noonu sans que ça maa ngi lay kii amal jàmm maa ngi lay siyaar bu wërë wërë wërë wërë. ci biir. mais est-ce que sama lépp la euh. moo ngi noonu merci Papa Kelly si question bi nga xam ne nii Pod Ngoxo Wally Ballago Seck moo ngi noonu ngeen di seen alors euh, dégg question bi euh, waaye tontu bi nga xam ne tontu na ko si nee na moom bu doon génn à chaque fois dem événement yaay ñu koy njëkk wax mooy bisimilah demal ak jàmm ñëw ak jàmm. bu demee ba yëg si avion sax avion bi di bouger yaakaar day daanu sax moom fu mu toogee toog parce que jàpp na ne day ñibbi si waat ak jàmm parce que yaayam ñaanam mu ko ñaanal maintenant ce n'est plus le cas dina dem le sept ay na incha allah xam ne nii mooy yaayam di mama jaaga nan la ko na dundee dégg ngeen sax kàddu yi nga xam ne bu mu koy wax nga jàpp ne fu mu toll nii euh, ku triste moo doon wax voix bi baase lool lool lool yi mm-hmm. boo xamee nga xam ne euh, tristoon na trop trop am na ay souvenirs yu bëri yi nga xamee nii incha allah rabi bu matul kii Mama Diaga dina ko manqué trop trop dégg nga daawul wuy téléphone mais moom rek lay wuy téléphone tolloog deux heures de temps des fois sax mu nekk ci ay jafe-jafe timit euh, da ngay waat naka yaay xanaa ñaan bi agseegul mun ko defal lii defal lii defal lii d'ici trente minutes nga waat ma ndax dina marché ou pas d'ici trente minutes bu ko waatee naa ko woof loolu la ñuy wax ne ñaanu yaay du amul daal lu ko mën a arrêté alors Ouz di nga kàddu yi nga xam ne nii euh, Wally yëkkati na ko c'est la première fois mu waxee nii si nga xam ne nii moom moo nekk euh, Mama Diaga waaw moom ñu ngi koy ziaral bu baax Wally mm-hmm. Seck ñu ngi koy bëggee di ko safowaat tey di ko ndokkeelaat bu baax a baax baax baax tey ñaanal sunu yaay soxna Kiné juuf mm-hmm. ñëpp gën ko xam ci mama jaaga sunu borom xare ko àjjana te yéexeenu tey gën ko taxawu moom Wally Ballago Seck bu wér ndax nag moom àdduna dafa demee noo xamante ni kenn du comprendre ci lépp nag. Mm-hmm. waaw ndax euh, diggante yaay ak doom moom remplace nit ku ko remplacer mënta ne. Mm-hmm. waaw yaay yaay kenn du ko remplacer ci doom. ak mm-hmm. ak ak ak ak nu mu munti demee. billaahi ak lu mën a xew lu mën a xew lu mën a xew lu mën a xew lu mën a xew waali mm, vidde vidde bu mag a mag a mag a mag mag la am. moom bu ko waxee am na vide bu ko waxul it am na vide waaw te Wally ay mbiram ni mu demee ci ay maanaam ñu tënk ko ci benn cinq ans mhm. dafa doon lu metti waaw bu ñu bu ñu nee dafa doon lu métti mooy ku ci nekk yàlla suñu borom dafa am kum lay booleel Wally nekk ci àdduna am kilifaam muy Serigne Abdourahmane Fall Tilala mhm. di ko ñaanal Fall. suñ boroom defal ko ay tawféex mu am sëñ Abdourahmane Fall Tilala mu wàcc liggéey waali di jooy pareegul waajuram wu góor wàcc liggéey mm-hmm. waali sekk di jooy pareegul waajuram jigéen maanaam magam di waajuram wu jigéen dem mm-hmm. waali di jooy pareegul kim dese woon ci àdduna di léppam ndax ñi dem ñëpp dem la loo xamante ni xëy na euh, bu fekkee papa coon dem na mënoo ko remplacer mm-hmm. mais mën nga indi benn Alioune Seck mu remplacer la papa coon mm-hmm. waaw benn moomi bu demee mën nga indi benn Aïcha Rasoul benn Serigne Abdourahmane Fall bu demee mën nga indi Serigne Aziz Fall ba ci doomam suñ fàllu wala suñ yus mu remplacer waaye yaay yaay kenn du ko remplacer ci àdduna waaw yaay day leen te loolu yëpp ci ci Wally Seck la dal waaw moo tax nag dañ koy ñaanal ci ak lépp lu mu mënti am rek en tout cas ñun ñun muy ñun di ñëpp maanaam nañuy fonk suñuy waajur waaw nañ fonk suñuy waajur bu baax a baax a baax a baax a baax maa yu jigéen yi nañ leen fonk daal te taxawu leen bu baax waajur yi waaw nañ leen nañ leen nañ fonk rek ndax waajur moom surtout waajuru jigéen man dama nag waaw man dama <laughs> garaawul tawféex yi waajur mhm. yi comprendre uñ de comprendre uñ lan mooy njëriñu waajur ak lan mooy njëriñu waajur ñaanal la waaw waaw waajur man dama dul ay waxu wàllum yaayu moom ak yooyu moom Mm-hmm. man bu ñu ci duggee rek daf may xaw a kii ndax dama dama dul dul mën a exprimer wu. Mm-hmm. ndax man bu ñu tuddee waajuru jàmbur man sama waajur laay gis. Mm-hmm. Uh-huh. waaw man bu ñu tuddee waajur keneen moo tax it ak lu mun mënti xew rek sama bos laay gis ndax nag maanaam mel naa ci moom noo xamante ni <laughs> du ma comprendre moo tax daal nen na ko nen na nen leen ñaanal ñoom ñëpp. ak képp kuy waajur ci àdduna ñu lay ñaanal nga mën a tënk say doom bañ fexe làkk say ngërëm. fu nii jarul kenn di dem ci sëriñ naan ko ñaanal ma waaw jarul kenn fexeel say waajur bëgg ci sa jëmm rek buñ bëggee ci sa jëmm daal looy uti di nga ko am waaw Wally Seck ñu ngi koy ñaanal nag le set bi muy dem yàlla defal ko ci ndam ak tawfiix waaw yàlla na ci am ndam li mu fa bëgg moom moo ko xam yàlla na ko yàlla defal yàlla na ko yàlla sàmm yàlla na ko yàlla aar bu baax a baax a baax a loolu daal maa ko koy fasaale waaw d'accord merci beaucoup Ouz c'est c'est vraiment triste donc moo ngi doon étude trop trop trop et euh, ku ko déglu te ñëpp lay touché même ñu saan sax affaire bi dana xaw euh, même Papa Kelly bi gis mu ngi mentionné si suuf que moom sax euh, moo ngi liir sa bëtu Wally Ballago Seck kii que Wally moo noonu en plus dafa mel ni ku doon Wally sax de même que moom donc c'est comme sa alors Nana da nga gisee interview bi nga xam ne lii tey Wally Ballago Seck def na ko. waaw comme ni nga ko waxee rek ah Ous Ous Tamane tamit waxee ko noonu mhm. donc c'est vraiment triste. mais nag euh, hmm? nga wax. je sais sax ma sax lu ma wax. <laughs> nga wax de. Ous Tamane <laughs> ko ut nag Ous Tamane ko mën a Ous Tamane. <laughs> Ousmane tamit waxee ko noonu. donc euh, c'est vraiment c'est vraiment triste. Mhm. Euh, mais nag moomoo. comme ni ñu ko ni ko Ousmane waxee rek. des cœurs pour Wally Ballago Seck. waaw yaay yaay euh, amul remplacement mhm. pour ce garçon et c' est vraiment waaw yaay yaay moo amul remplaçant même bu fekkoon ni sax moom dong moo jóge ci yow amul remplaçant waxuma la ak nag. Euh, comme ni ko Noreen limee sànq affaire yi tegloo xam nga day euh, faatu day demee noo xam ne euh, da lay bett waaye tamit da lay muy koo xamante ni amaana bi ngeen di tàggoo yaa ngi jàpp ni tôt di ngeen gisantewaat ci jàmm. looloo ci metti mm. tôt ou kii may tàggool dinaa gisante waat ak moom muy yéene bu profond nag mhm. yéene bu dëggu nga am ci yaqin gi yàlla ne la déedéet yow dangay pexe rek man damay dogal mhm. dogale ko ca dogal yu yu dogal yu metti mhm. te mënoo lu dul nangu nag xam nga li li doy waar mooy yàlla bu dogalee yow yow jaam bi da ngay cest à pexe du am da ngay dogal da nga nangu nangu ndogal mu nangu ko nag waaye tamit dëgër mhm. waali su ma juumul c'est c'est la première fois mu waxaat ci yaayam à part bien sûr euh, sarax sax bi mu kottee maamam nga xam ne gars yi sax ñoo jéem a dugal micro ak yooyu noonu mais man su ma juumul si je ne me trompe bii laa ko mës a gis mu wax ci yaayam mhm. sûrement si waxin bi sax mais mu wax ci ak nga gis ku ku ku dëgëran ku dëgër ah. moomoo mhm. yaay yaay yaay dafa dafa dafa foor ci doom yaay dafa sori ci doom yaay rek nga mën a yee maanaam am problème woo ko n'importe quelle heure wala nga yee ko n'importe quelle heure mu jug di ko def ak xol secourir la di la soutenir yaay rek moo ko mën moomoo sa yaay rek moo la mënta bàyyi ci bi nga nekkee ci ay jafe-jafe mag mën na laa wor rakk mën na laa wor xarit mën na laa wor nijaay bàjjen yumpaañ baay ñépp waaye yaay koo xam ne ci sidditam nga daggee moom xam ne ci butitam nga ci moom kooku c'est-à-dire daf yow ci sa jëmm sax booy booy xool sa yaay dangay xam ni kii c'est-à-dire bëtu yërmande la lay xool waaye yow tamit bëtu yërmande nga koy delloo wala da dafa wax lu lu doy waar. Mm-hmm. su ma mësaana nekk ci jafe-jafe dama koy woo mu ne ma dans trente minutes woowaat ma loolu yàqin la. ak ak ak yaay ju laab yaay ju set. Mm-hmm. xanaa xamoo yaay ak nu mu mën a mel yaay la waaye rawatina yaay joo xam ne dafa laab nga di ko gis ci yoonu siraatal mustaqim gisoo ko ci lenn. Mm-hmm. lu ñàkk fayda gisoo ko ci lenn loo xamante ni rek da ngay rusa wax ni kii sama yaay yaayu responsable yaay bu diiñ yaay yaay boo xamante ni cest foo ko gis dangay xam ni kii jigéen ju sell la kooku boo boo boo seralee xolam jarut jarut ngay ngay dem ci sëriñu kenn wala ngay ngay dem ci fenn di fa ñaanaatu ñaanu yaay ci doom gàllaaj la waaye nag dafa am loo xam ne bu jógee ci yow moom foog nga yëg ko ngay bañ te ndeysaan euh, damay damay dégg kuy wax ni euh, lépp mën nga koo muñ mën ngaa ñàkk sa baay muñ ko mën ngaa ñàkk donte metti na doonte metti na am na ñoo xamul seen baay ba ci man mm-hmm. waaye sa à dire bi nga xam ne fala yaay tollu kenn du la fa toll moo tax mm-hmm. ñuy wax à chaque fois ne yaay amul remplaçant mm-hmm. yaay amul remplaçant ci dara ci dara yaay du du du du du c'est-à-dire dafa mën a soutenir doomam ah. te bëtu maanaam nit mën na laa xool sax ne la da ngaa réew da ngaa nangam mais sa yaay doo réew ci moom doo bon ci moom doo ñaaw ci moom du gis sikk ci yow loolu mooy amul bu pur amul bu sincère moo tax soo ko ñàkkee foo jaar yëg ko xëy na wayi mën naa neex pecc mi mën naa neex ba yóbbaale la waaye boo wiitee yow kese dinga nga di nga sentir benn vide boo xam ne da ngay xam ne ah am loo xam ne bu la bu la dalee te daan la dal sa yaay moo la daan taxawoo yenn yi am yoo xam ne ay événement yoo daan jublu soo ci soo soo ci soo ko dëgmalee sa yaay rek nga daan gis wala mu bokk na ci loo xamante ni maanaam am na yu intime yoo xam ne moom nga daan waxtaanal ci loolu moom nga daan jëfal ci yooyu moom nga daan déggool ci yenn yi jékki-jékki gisoo ko nga dëgmal événement bu mel noonu foo jaar nag sa xol dina laaj. foo jaar sa xol dina laaj waaye nag ñu delluwaat ci borom bi subhaanahu wa xam ni nag moom mooy borom kun fa yëkkun te it moom mi bind jaamam xam ni man mii kat sama jaam bii lii laa namm ci moom te nii laay def ci moom kooku moom ku yebu ba kook jaamam rek. Mm-hmm. ku yabu ba kook jaamam rek lu lu mu namm ci nit ki mooy am balaa nga koy xam tey jii nit day waajal dara woy suba bu ma bu ma xëyee def nangam ak nangam nga xëy sa yaram du sawar mu leer la ni ka daan jaar fee moo jaar fii donc dañuy dañuy dañuy delloowaat suñu xel ci yàlla rek di ko ñaanal yàlla may ko xoluk muñ ak képp ku mu dal nag moom moo parce que du Wally Seck kese maa ngi fàttali jour bi euh, way juróom bu jigéen di dëddu ci la sama rakku yaay bu mu bokkal ndey ak bàyyi fa ma nekk actuellement nii mm. sama sama sama kër euh, tante la mm. sama tante boobu jour bi bi ma yëg des bi ma yëg desee yaayu waali mm. moom ci la ci booba dafa fekk ma waajal sama bagage pour dem ci dëjëm moom dégg ma mm-hmm. ci yoon wi ci laa yëgee ni yaayu waali dëddu na te am na ñeneen ñoo xam ne ba léegi démb su ma juumul laa dégg yaayu bi bis dafa wàcc ak ñeneen ak ñeneen ñoo xamante ne tey jii ñi ngi même bu ñu robul seen yaay ñi ngi rob seeni ñeneen bakkan bu ñam dund dina ñam dee mm-hmm. ñu bañ ko ñu bëgg ko nangu dogalub yàlla bi rek te di ko ñaanal aussi moomoo mm-hmm. euh, man de gëm naa ni Adidas Arena boobu dina fees dina réussir xam nga lu tax mm-hmm. si loolu lañ waaw bi sa yaay di dund. génnuma foofu bi sa yaay di dund. Mhm. danga ko da seral xolam. ñu gis video yi viral mu la ciy ñaanal. Mhm. wax ba dënnam jug ba tuur rongoñ ci rongoñu bànneex di la ko ñaanal. Mhm. loolu defe naa nit ku ko am waratoo tiit waratoo raf waratoo ragal. da doon neex nag présence am nga am ko gis présence am waaye lu neex yàlla dalaa war a neex te gis nañ ñun xam nañ ni neex na ko parce que mi ngi wax ak ndëgër laay waaye waaye nag foo jaar manqué am lu la manqué. donc ñu ngi leen di ñaanal yàlla may leen xoluk muñ te ñun ñi fi ñi nga xam ne suñu yaay ñun la fi des. yàlla bàyyi leen fii ba ci kanam a kanam a kanam kanam. ñuy gunge di ñu gunge ba ñu ñime yoon wi. amiin amiin barkeb Seydina Muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam. jërëjëf ngi noonu alors mu ngi noonu kàddu yi am na solo euh, ñu ngi koy jaajëf bu baax a baax euh, Waly Balago Seck euh, si témoignage yi nga xam ne def na ko si nga xam ne mooy yaayam mu nekkoon léppam tamit comme